ci bis yi nga xam ne yi may bàyyi xel ci sama àdduna lay war a bokk ndax bisu jàmm la boo gisee mayor Matlabul Fawzayni eh, sifaay bi ki ñu amul moom ci mbasa tax mu taalif ko kon dawa bi nga xam ne mooy piqûre yi ñuy def ak yooyu loolu lépp sëñ bi tënk na ko ci téereem bi kon nag ku bokk ci sëriñ bi eh, damay defe ne war nga mën a faju boo wéradee boo wéradee witit nga nga nga gàttandu luy tax yàlla mën laa musal ci ak wéradi nag moo moo moo tax nag tey ma ñëw ci ñakk yi nga xam ne nii ci corona bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ma xalaat nag ne ci doomi senegal la dëkkuma meneen réew kon nag bu yàlla dogalee mbir mi amee nii ma xool ne citoyen la mënuma doon lu dul moom te njaboot gi bi ñuy ñëw dañoo wane ne àdduna ak àlaaxira la ñaan dégg nun te àdduna bi ci lañu tolloogun te allah ku xaal am na loo xam ne daañ nu ko laaji ëllëg ci njaboot gi bi ma xoolee loolu nag xoolatuma man sama bakkan xoolatuma sama lenn bëgg na maa wér lool nag su ma wóoluwutoon ne itam bu ma ko defee du ma wér du ma ko def dama wóolu dama wóolu ne baax na waaw bi ma ci waxtaanee ak sama ñi ma ci war a waxtaanal moo tax ma ma nangoo jël ñàkk bi yàlla dogaloon na ne tey ci heure bi ku ci cornomètre heure bi heure bi ñu may ñàkk ak heure bi ñu noppee fa laay saaxiroona saaxatan wala saxdimi doo avancé doo arrière bu fekkoon ne ruug yi noonu la deme bis bu ñu koy rocci fa laay saaxiroona saaxatan wala saxdimi kon ginnaaw bu ma gëmee loolu nag ma waxtaan nag ak ki nga xam ne moom lay déglu muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha démb it laa waxtaan ak moom wax ko xalaat bii nga xam ne moom laa am wax dëgg yàlla su ma ko nangu lu toon it ah docteur euh, directeur de la santé dana xaw a jafe waaye kon du ma ko mën a def la ca biir waxtaan wa du neex a leeral waaye daal na leer ne bu ma jëlee dara ñu jam ko ci sama loxo fa ne xam na ne ñu ngi may ñu ngi may ñàkk man te yaakaar naa ne ku sori ci moom la moom it yaakaar naa ne ku sori man ku sori ci moom la la man nga ne amul lenn loo xam ne nii danaa ko def te duma ma ko yëgal bi may wax bi may wax moom sax dema ko ne laa falo sayan bi xayri isni laa ko wax sëñ bi dane ne bu leen def dara te amu leen ci ndigal kon moo tax bi ma waxee moom ba mu ba ànd ci ak man ma wax ko li tax ma def ko mu wax ma la may wax loolu lépp a ngi ci biir isaru teg fi àlla laaxil junju day doy boroomam xel waaye daal li tax ma def ko fii ci mairie bu Tooki def ko ci village bu Afe Mbàkke damay lancé appel ci képp koo xam ne man yaa ngi may déglu ne la ñàkku naa maa ngi lay jox ndigal nga ñàkku moo xam nag ku ne ci commune bi la moo xam ku ne ci département moo xam ku ne ci région bi la moo xam ku ne ci fukki région yi ak ñeent ñëpp laa jox ndigal ku may déglu moo xam xarit nga moo xam taalibe nga moo xam jàpp naa ne Euh, gënoo ma bëgg sama bakkan moo waral nu nu nu pikiru pikiru wunu nag pour wane ko ni déedéet dañoo pikiru ngir ëllëgit yàlla bu nuy fay fayaale nu ci média bi ndax média lu am solo la waaw waaye defuñu ko ngir wane wu ndax man xawma suba la xawma ginnaaw suba waaye li nga xam ne moo tax yàlla bindu nu daal andi fi lu ma ca man danaa ko mën a matal waaye danaa ko teg nag ci kilifteef naa gouverneur nag